man le Papa Seydou Diallo ñu ma wax vieux ma dëkk HLM 5 22 68 depuis 1987 88 lañ fi toxu fii waaw li am mooy 88 euh, lañ fi dëkk sam papa jënd kër gi ci pa Amadou Dia Amadou Dia moo ko jaay kër gi quand couvre-feu ba 88 lañ fi toxu fii toog fi 88 sam papa pour ñun jënd na kër gi y' a pas de problème parce que paa itam daaw ñu wax kenn dara jënd na kër gi.

maire ba jur dem au niveau de GFM xam ni kër gi des na am na lu ci des ñoom ñu gaawantu comme que seen turu moo ci nekkoon au début seen turu yaay moo ci nekk parce que paa bi amuloon droit am deux kër HLM temps yi mu am benn kër HLM quatre fële mu jëndaat beneen def si turu jabar ji mais ba mu demee ba di ko jaay dafa jox sama pap procuration jox ko acte de vente ndekete yëpp c'est faux dara baaxu ci procuration bi mu ko jox d'abord mi ngi si ñu ngi si ñu ngi ko daté en

si lañ nekk si lañ nekk ndekete affaire bi ñoom décision bi ñu jox amul appel danañ ko jox dans quarante jours ñu nekkee ni génn leen kër gi bëgg ñu saax saaxee ñu ne amul délai ñu ne du dal boobu ba léegi nag ñu nekk si appel ba léegi mi ngi en cours ba léegi mi ngi gars yi ñëw nañ fi nañ génn kër gi indi fi huissier ñu ne ko duñ génn léegi nag tey mu dem indi police nen nañ génn nañ génn yàgg na depuis décembre ba le passé la fi huissier bi njëkk ñu ñu ko ñu duñu gën te boo xoolee ordre d'exécution bi sama tur lañ ci def man ak sama turu yaay te man kese du ma héritier samay rakk ñi ngi fi ñoo bokk bàyyi ñi ñoo bokk ndey ak bàyyi ñoom ñëpp seen tur nekku ci ñooñu ñu leen ñun duñu ñu génn kër gi parce que suñu tur nekkul ci kayit gi man leen man d'accord mën naa génn man am problème maire bi sax turam xamuñu ko ñu bind yaay soow dit faatu xaw ma lan comprendre noonu la affaire demee ba léegi nii moo tax tey ñëw booy ne leen duñ fi jóge donc suñ la déggee dafa mel ni dañoo falsifier mbir

indi police nañ génn. mais jaay doole la mais jaay doole la mais nit ko et puis li njëkk a bind ci kayit yi ah mooy dañu abal kër gi gracieusement ko abal kër 87 ba léegi mos ko gis loolu ko abal kër nit 40 ans xaw ma 44 ans ña koy wax ak ñam ci boole ña nga dëkk Fass Mbao xaw ma di nga abal dëkk Fass Mbao di abal kër HLM yëfu truand yëfu naafiq seen benn mag bu nekk Guinée koo xam ni paa juru ko paa jaay paa kër mais maire bee ko jur kooku moo manigancé lépp. mi ngi en ginee ba léegi moom mooy fay avocat yi mooy def lu nekk ni nañ génn nañ génn waaw waaw man nag dem naa kër paa bi paa bi malgré que mag la day naax di njëm ama ànd ak huissier paa bi reconnaître ni man maa jaay kër gi wax montant kii desalu ma dërëm maa ko jaay jam jàllo kon bi fan la nekk kon si doom yi problème bu këyit la rek quoi si doom yi ñoom bu ñoo war xam seen papa jaay na ko ñu bàyyi ñu ñu dem régulariser suñu kër mais ñoom kitis bi ñu téye mooy suñu problème cutis bi ñu jël au niveau de HLM mooy suñu problème jël nañ cutis bi téye ko te ñun mënuñu def dara sans cutis mënuñu def suñu tur papa mënuñu actuellement ñoom ñoo nekk xam nga si waaw ñoo nekk si position de force laa wax nekkuñu en règle ñoom nekk si position de force noonu la affaire bi demee. léegi taxawaay bi lan a doon. mais taxawaay mooy comme li ñu wax rek yoon dafa am yoon dafa sew li ñu wax nii ñun mën nañ génde suñ tur mooy parce que kayit kayit la rek. mais sama rakk yi seen tur nekkul ci këy ci ci ci ordre bi ordre d'exécution nekku ci ñoom bu la neexee ñun taxaw ni kër gi ñu ne héritier lañ ko man man ak ñoom ñoo yem mm-hmm. su man mën naa génn sa sama tur a ci mais ñoom du ñu génn ñoom nee nañu seen tur tànk nekk duñu génn te dëgg la wax nañ dëgg booy nag ñoo taxaw temm duñ fi jógee ñu fi génn noonu la affaire yi demee bon lu ñu compté def fi mu nekk ni suñu avocat mi ngi doon wax ak commandant bi actuellement nii am na bon xëy na yu muy def ak yooyu au niveau du tribunal ak yooyu mais actuellement nii daal man man moom génn kër gi amul problème parce que man man mën naa génn kër amul problème waaw. parce que boo xoolee 88 ba nga da nga abal nit ki kër loolu ndax yenu na maanaa sax d'abord dama abal nit ki kër gi vraiment daal nit ñi daal ñu ngi nii daal alal moo gën a loo gis si àddina xalaatuñu dee xalaatuñu dara mais lii yëpp su ñu bon dina atte quoi loolu moom kenn mënu ci dara yàlla day atte billahi yàlla na yàlla leeral lépp ku nekk dëgg yàlla na yàlla jox dëgg mu leer nañ billahi wallahi li ñu bëgg def nag mënu nekk jaay doole la ñuy def de jaay doole jaay doole dem indi camion ñetti kam camion police indi leen fii nañ génn dugg na fi génn lii amul sens yeb day jeex yeb day jeex du dara wallahi njaboot nga ci xalat rek ñom ñoy xaw a kii mais ñun ñi xam nañ nu mu demee billahi du dara léegi nak comme li ñu wax nak tubab keuyit la xam décision di décision bii man la concerné sama yaay lañ ci bind ñeneen ñi concerné wu len donc ils ont le droit de rester dans la maison ñom duñ fi génn wax nañ te wax nañ dëgg man duma sen papa ñom dañu peut-être ñom dañu foog man may xoolal may borom kër gi mom tam man xamul ni man héritier la paa bee ma jur. samay rakk ñoo fi nekk xoolal loolu d' abord. di jum ci ay tur maire bi xamuñu turam ñu bind yaay faatu dit sow xaw ma lan ak lan peut-être yooyu yëpp bu ñu ko toppoon duñu duñu génn kër gi mais nañu wax dëgg rek. mais indi la force indi force xam nga public ñëw taxaw ni par force nañ génn par force nañ génn mais na am na yoo xam ni affaire daal noonu la demee daal vraiment. kër gi fii suñu kër la xam nga kër gi kër gi suñu kër la ak bii nekk ci à l'angle bi bu laay baro bi bu laay baro bi. lu tax sax mu bokk ci kër gi parce que pas Amadou Dia ba mu ba ko HLM joxee kër gi fii amuloon dara ay mbalit lañ fi daan sotteeg yooyu. moom mu dem au niveau des HLM ñu jox ko kii bi gars yi autorisé ñu ko jëlal fii comme que ay mbalit lañ fii sotteeg yu kenn xamul paa bi si la jëlee tabax benn néeg noonu la demee fa la laay baro dëkk nii ñu ñëw nag toj kër gi waaw noonu la affaire demee daal benn kër la yëpp booy xool benn kër la waaw léegi ñëw nañ génn ñële. sen keur parce que xawma nu mu non ñew nañ fi magasin xamul xam nga vraiment amna te du gëna a ah. sama grand di wax ak mom niko señ bi xam nga ni pa bi mo jaay gi mu way ko mais lim ko baaxul tu te rends compte wallahi mu ne ko bi ba koy jaay xam baax pa bi jaay 88 87 9 la ko jaay papa mm-hmm. mais mais boo toogee ba léegi nga xool valeur HLM nga ne non léegi ay cent millions cinquante millions cent millions xam nga loolu moo tax rek du leneen mais ñun ñi toog seen kër jàpp seen jàpp amuñu kenn problème fii koo fi laaj booy fi leen juddoo mais yëfu tappale yëfu naafiq xam nga alal moo leen jiital kese moo tax ñu xam nga bëgg ñu taxaw nii mais yàlla day atte de wallaahi yàlla day atte waaw li xew fii moom jaaxal nañ ñun ñëpp parce que ñun ñi ñëpp si koñ bi lañ dëkk fii lañ juddoo fii lañ yaroo kër gi bi ñu fi nekk boobu ay xale yu ndaw lañu ay tout tànk lañ boobu ñu ngi am ay lage de dix ans ou treize ans mais ni mu demee nii dafa jaaxal ñëpp parce que lii man dama jàpp nii du dëgg su fekkoon dëgg la date bi du duré nii ku fi dëkk 1988 wala 87 ba léegi ñu naan tey dañu leen abal kër gi war a dañ ne benn seen papa moo ko jaayoon ñu dem ba ci biir ne dañ koy foqati si si loxo Papa Diallo loolu daf ñu daf ñu jaaxal lool lool lool parce que tey ñun ñëpp HLM kër gi lañuy foowee fi la lekkee fi la naanee ñun ñëpp fi la ñuy seetaanee match fi la ñuy seetaanee làmb fi la ñuy defee lépp paa bi nekkoon paa bu baax paa bu bëgg njaboot paa bu bëgg njaboot paa bi bi mu jaayee yeneen kër yëpp fii la ñëw dëkk HLM pour suturloo ak njabootam mu uuf ñu ñun ñëpp njaboote ñu mu nekk paa bu baax a baax a baax a baax tey jii man li ma gis nii dama gis ni jaay doole la parce que am na ay ñu ne si ginnaaw ñoo xam ne dañoo am doole am na seen benn grand frère bi ñuy wax bu dëkk bu dëkkoon fii seen papa jaay kër gi moom moo nekk gine tey bëgg sulli affaire yi bëgg néewal gars yi doole te àdduna warul demee noonu te yaakaar naa ni nag fi ñu toll nii si senegal loi bi moo ngi jaar yoon parce que am na changement bu fi am te changement bi fi am war nañu permettre ñun tamit ñu mun a gën a xam suñuy droit parce que wax dëgg yàlla lii jaay doole la ñun HLM ñun ñëpp benn lañ surtout koñ bi ñun ñëpp benn lañ te kër gi mooy suñu regroupement kon ñun suñu devoir mooy ñu taxaw tembe ah soutenir suñu papa soutenir suñuy frère soutenir suñuy yaay parce que looloo ñu war loolu lañ ñu ji affaire bi nag man ni ma ko gisee nii wax dëgg yàlla leerul dara su leeroon du demee nii leerul leerul leerul. parce que maa ngi dégg ci ay wax kër gi bi ñu koy jënd ñoom 9 millions lañ ko jëndee à l'époque ay jamono ci ginnaaw HLM ñëpp xamoon nañ ni prix yi cherul noonu. boobu marché bi débordé wul. tay ji marché bi mo indi ampleur HLM ba tay ji kër yëpp yokku mais jamono bi ñi pa bi di jënd fi à 87 bobu 9 millions 10 millions mo mo moo fi amoon comme ay njëgu kër mais aduna day dox fu nekk ni nak ñun li ñuy ñaan suñu yàlla suñu borom mooy yàlla dellu ñu delloo ñu sutura bi delloo ñu doole ji delloo ñu kattan bi ak muñ bi ba kër gi mu teguwaat suñuy loxo papa suñu loxo yaay suñuy loxo frère ñun daal wax dëgg yàlla loolooy suñu mbëbët te dëkkaay bi rafet na lool li waral lii ñëpp ñëw génn paa bi am na noo xam ne su ko meloon problème amee ñëppay taxaw seetaan mais paa bi ku yaatu la. paa bi njaboot la paa bi ku tëddee jaaxaanaay la ñun ñëpp moom moo ñu uuf moo ñu tette tey jii am na ñu bëri ñoo xam ne ñoo ngi dimbali koñ bi comme man mii lépp lu xew si koñ bi damay ñëw taxaw tembe si lu baax paa bi moo ma si initié dañ doon toog di waxtaan mu ñuy wax nii la ak nee la kon nag ñoo ngi ñaan yàlla suñu borom mu delloo ñu dëgg delloo ñu kër gi parce que kër gi am na ñoo xam ne fii lañ juddoo xamuñu fenn. su ñu demee day indi day day day tasaare njaboot gi day tas famille te ñaanuñu yàlla loolu mu mhm. ngi ñaan yàlla delloo ñu sutura si koñ bi ñun ñëpp dellu am jàmm kër gi yàlla tegaat ko si suñuy loxo si kàttanu suñu borom. léegi taxawaay bi la war a taxawaay bi daal lépp loo xam ni xam nañ ko. Mhm. wara a mën nañ ko mais nag tout sauf violence parce que violence moom fajul dara nañu dem ak suñu xel. yoon am na fi ñu jaar fi ñu war a jaar dugg fi ñu war a dugg mais ñun moom muy guddi muy bëccëg taxaw nañ tembe pour soutenir famille bi parce que du ñu ne soutenir famille bi sax suñu bopp la soutenir parce que lii suñu yëf la koo xam ni fi ngay foowee fi ngay lekkee fi ngay naanee fi ngay defee lépp man kër gi am jabar moo tax euh, Malick Diallo ñu tàqali ko ñoo bokkoon benn néeg si biir kër gi kon nag man doom laa ci kër gi damay taxaw temb lépp lu ci war Sur le rafet sur le bas, nous faisons encore des def man ak samay mbooloo man ak samay copains parce que man ni ma fi mel noonu la fi ñëpp mel kon ñoo pour nous. kër gi ba ñu delloowaat ndam li ci loxo maire beeg paa bi incha allahu rek jërëjëf di fay di ziar dafa mel ni gis auto xalaatuma woon ne fii la jëm si xalaatoon naa leneen dama tiit ba xaw ma nu may def même borom kër gi dafa génn naan lan moo xew ndekete ñoom dañoo ñëw pour génnee si te loolu du c'est pas normal nit boo koy génnee sax war nga ko woo wala nga suturaal ko ndax ki fi jóge woon mu nekk suñu papa Diallo yal na ko yàlla yërëm borom sutura la woon njabootam yi xeexuñu xuloowuñu wante nag lii dafa ñaaw dafa ñaaw waroon nañ leen a avertir wala au moins ñu may leen ab de temps boo xamante ni nii dañ leen di mën a génnee mais nga ñëw toog say njaboot toog ñu bëgg la génnee du yoon du yoon waa te góor gi jaay kër gi ñu ngi naan dafa naax naaxul mais moom ci boppam nee na maa jaay kër gi donc comme ki ne man maa jaay kër gi kooku war nañu wax ak moom wala ñu wax ak njabootam parce que lii toroxal doomu aadama la te yàlla buggul kuy toroxal doomu aadama ñun ñëpp a yeewoo naqar ñun ñëpp a doon jooy parce que ay dëkkandoo lañu ay mbokk lañu suñu ay xarit lañu kër gi yaatu na ñi fi dëkk yaatu nañu mën na fi presque ñun fii lañu fawee suñu jenes yëpp fii lañ ko defee ndax koo dëkkal prix de 40 ans wala 50 ans. ah man de lii daf ma bett vraiment mbokk lañu ay mbokk lañu barke Seydina Mohamed ay mbokk lañu lii nag metti na fu ba metti na fu metti commencé foofu lay doog a dooree xamatuñu nag lan la ñuy def ak naka la ñuy def ñuy wax ne nag lii moom war nañ ko génnee ci réew mi jaay kër ba pare ñu xaar ba borom kër ga génn àdduna ak njabootam jug bu ko taxaw loolu moom wax dëgg yàlla gouvernement bi war na ci jug ah? nit ñi war nañ ci jóg parce que lii du dëgg du yoon te c'est pas la première fois cas mel nii di am amoon na fi benn waagu ñaay ñooñu noonu la ñu ñàkkee seen kër tey ñu ñëwaat HLM fii bëgg a def lii ah wax dëgg yàlla lii rafetul. ñu wax ne kii euh, def euh, ñee nañu man doomu paa boobu sax xaw ma ko parce que ñun ñoom bi ñu fiy dëkk si ñun ñoo dëkk seendoo mais après yàggul dara ñoom ñu dem toxu mais ñun presque man ñi ñu miinee ñii. mii ne nuñ ñooñu parce que ñii ku nekk Guinée ak ki nekkul Guinée man xawma ma loolu mais lii ñu def nii na leen leer ne wallaayal azim ñoom dinañ ko gis parce que lii euh, toroxal doom te ay gor lañu te ñii luy màtt gor rek bu leen séenee ngaan ñu baax a ngi nii ñu goree ngi nii ñu téye ngi nii amuñu bunt kër seen buntu amul caabi HLM mm-hmm. yëpp fii la ñu xam góor xale mag ndaw ñëpp fii la ñu xam ñun ñëpp fii la ñuy daje di waxtaan mel bi di joxe lekk di joxe naan bëgguñu bëgg suñu njaboot dañuy ñaan yàlla li yal na ko yàlla seral yal na ko yàlla saral parce que lu méttee ngi nii lu métti métti métti métti mu ngi nii ok ok maa leen di gërëm di leen sant tey ñaan yàlla yal na yàlla woyofal waaw